Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacké mi di nuyu mboole mbokk yi ñu fi fekk teew ay kilifaam ak ñi nga xam ne ñoom lañu fekk ñëpp muy sëñ Cheikh Kajoor ak sëñ Moustapha ak sëñ mooru Baara ñi ñëw ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak mboole njaboot gi fi ne ñëpp di bég ci bis bii nga xam ne day bisub sëriñ bi ndax alxuraan mooy moom moom mooy toorub sëñ bi. ndax dafa ne woon bustaani kitaabullaahi ne dafa waxoon nit ku koo xam ne bëggoon ngaa dajeeg man ba fawil ma na nga dem ci téere bi yàlla bi kon mel na ne ci toorub sëñ bi lañ leen fekk ren nag ngeen jagleel ko Cheikh Abdoul Khadir mbakke jëmmale ko ko muy suñ mbégte mu réeréeri di mu wóor ma ne it la ndax alxuraan rek la doon dund moom la doon jëfe ci sunna rek la newoon kon jataay bii nga xam ne dara génn ci alxuraan dara génn ci sëriñ bi ndax sëriñ bi dundam bépp mooy alxuraan kitaabun bihi narjoo minallaahi rahmatan wa nanjoo bihi duniyaa wa oxra minal karbi alxuraan la defoon muy léppam ci la yaakaar léppam qiraatuha kanzi wa jaahi wa xizzati uniltu biha kaw nii la dallahi saa sit kon mel na ne alxuraan bihi yuhib bu nii labib sax la wax am xel ci nga may soppe kon yàlla na yàlla dimbale ba saxal ñu ci lii bi ñu fi ñëwee nag bég nañ lool ndax xale yu ndaw lañ fi ngeen ñu fi wan ñu jot leen seeni shahada te xale yooyu wóor na leen ne lii ku toll noonu mokkal alxuraan sëriñ bi rek ko mën am waaw xarbaaxu sëriñ bi rek moo ak jagleel gi ko yàlla jagleel alxuraan rek moo waral loolu mën moom sëñ bi moom mallakanil quraana rabbul alamin wa qaadahu liyal aminu wal amiin la loolu nag ku dugg ci tool bi rek jàppandi ga nga cey gis dana la wóor ne doonoo ci dara sëñ bee kon lii ñu fi gis dal na suñu xel ndax mooy wóor ne rek jiw wi mi ngi wëy ndax al atfal ñoom ñooy yaakaari ëllëg gone yi ñooy yaakaari ëllëg kon bu alxuraan jiitoo ci ñoom day mel ne rek lislaam moo jiitu ci seen xol afaman saraha allahu sadrahu lil islaami wa huwa ala noori min rabbihi kon yàlla na nu yàlla dimbale ba lii ñu fi gis mu nekk royukaay te nataa ej yi ngeen ci am nataayul ijaabe yi ngeen fi am yàlla na gën a bari di gën a meññ tañ bokk watt njariñ li te lépp delluwaat ci liggéeyal sëriñ bi ak liggéeyal njàngalem sëriñ bi ñu ngi leen ñu ngi lay sant nag yow euh, yow suñ sët bi nga xam ne yaa jiite lii ndax lii kat wax dëgg yàlla na la wóor ne yaa ngi liggéeyal sëriñ bi na la wóor ne it yaa ngi ci euh, yoon wi nga xam ne sëñ bi ci la so soloon mag ñëpp kon nag yow na ci ngëpp bu baax a baax a baax a baax te xam ne yaa ngi ngëpp bu wér ci li sëñ bi bëgg ku ngëpp li ci ci li sëñ bi bëgg nag war waroo ragal dara wa man yaxtasim billaahi faqad hadiya ilaa siraatin mustaqim kon nag yàlla na yàlla dimbali ñu ñu ñu jàpp ci bu baax a baax te te ko kanam te ndimbal li ci yàlla def ci dara ji sëriñ bi yàlla na ndimbal loolu di gën a jëm kanam ñu ndax suñ sañoon gone jullit yépp alxuraan mooy jiitu seen dënn ndax alxuraan bu jiitoo ci dënn day gaawal sa jéego ci leneen loo doon sàkk lu ne waaw boo wax boo alxuraan xasee dugg rek sama xel day ubbi ko ba tax na leneen looy sàkku day gaaw boo doon war jox benn jéego tayyu lañ lay defal da ngay da def ay ay ay jéego da taxaw fii dem dégg jéggiwaat beneen bu sori kon day day gaawal nit waaye du tardeel nit wa kullu aamin wa antum bi xayrin asalaamaaleykum